siyaare nag sunu way jur bu baax woowu nga xam ne mooy Serigne Jaga Diop Baye Fall moom fi bàyyi ko noo ngi leen koy siyaare di leen ko jaal di sax ko ci mboolem group bi ak mboolem bokki taalibe bi yëpp ñu maase ñaanal ko ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne amoon na ko ci yoon wi taxawaay bu am solo bi nga xam ne amoon na ko ci société nekkoon model nekkoon jàngalekat nekkoon koo xam ne it euh, nit ku yaatu la woon ku woyof ku baax soppoon lool lool lool lool. gis ngeen photo bii ñu ngi ko àndee woon si ses ci bisu maam Cheikh Ibrahima Fall boobu nga xam ne maam Ibra la ko doon taxawal at mu jot di ko defal maamam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ maam Cheikh Ibrahima sëñ Cheikh Fall Mbawar ñu daje woon fa ak sunu mag jooju di El Hadj Abdoulaye Diop Bichri gis nga ñu ànd ci jataay boobu kon noo koy siyaare adduna bi yëpp di ko jaal àdduna bi yëpp di ko jaal nag mboolem Baay Faal yëpp nga xam ne nit ku simple la woon nit ku yaatu la woon nit ku baax la woon nit ku. woyof la woon koo xam ne ku mësa a gisanteeg moom rek gis nga ne tedd ngay jikkoo ngi ci moom ci ak dal ci ak yiw ci yar ci teggin kon noo ngi leen koy jaal di ko jaal àdduna bi yëpp nun de wax di yàlla nun personnellement Gana Messere kun ku nu jàppoon la ku nu bàyyi woon xel la euh, ñuy ñu fonkoon ko lool ngir ak yaatoom ak yaatal gi mu yaataloon liggéey bi ndax suñu woy jur la te moo nu ci jiitu